boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo laa ilaha illallah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 xam ngeen ni ki daaw lañ ko àndoon ak yéen teew fii ci kanamu Serigne Cheikh Fall Mbawor moom Serigne Aliou Fall Mbawor du ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, tey yi suñu borom dafa laaj ñu jooju Serigne bi mu mel na liggéey bi gis na nañu liggéey bi ni mu demee euh, tubaarkaala xar yi macha allah ñu jël ko ngir nag liñ ci jublu mooy bokki taalib yi nga xam ne euh, ñi ngi ñuy dégg wala ñu di ñu gis buñ gisee liggéey bii dana leen soññ baax a baax dana sawarloo ki ki jëfuloon itam te liggéey bu ñuy jëbal mu di ko yët Serigne Touba ko yebu sa sa tabal sa saw ñaq ndax euh, liggéey bi loo ca def sànkuwut waaye sëriñ bi ginnaaw bi taalib yi jëfee jëf ji nag te nga ànd koog ñoom euh, kaddu yi nga xam ne fas nañ koy ne barkeelwaat ci yow yan kaddu lay doon euh, rawat na nag cës laayul xari tabaski kii nuy dajale ci kër Cheikh Ibra di ko yóbbul Serigne Touba lan nga ñu ci mën a indil ci ay leer aouzu billahi mina shaytaani rajim سد لساني نور جناني سفن أماني وفي البلاي نصر صدري لقد طمير فلتكفي جوري من جراي أنقذ إيالي من الضلال وبالألال خلي السراي خمه تاب وقل الكتاب وقل متاب يا السراي يا خير ربي خير مربي تايب تخل ببهدة جاي سلي وسلم على متمم قل يهسم بالانتهي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci seen i taxawaay ak seen positif ak seen bëggal lu ñutu lu baax ak seet lislaam ak di liggéeyal sëñ Tuubaa ci seeni eh, jëfandikukaay loolu nag noonu leen ci sant istiqaama kon fekk na sëñ bi def ab istiqaama xinil malaama ab likraam bisimilah kon nag nañ jàpp ci loolu yi loolu indi eh, tabaski nag li ko waral moom dama leen ne mi nga tàmbalee ci day wane taali bi bu gëm ndigalal sëriñam ak doom ci nangu ndigalal baayam ak soxna su gëm ndigalal borom këram ndax ci Ismaayila la ak Ibra Ibrahima la ak Ismaayila ak Haajara waaw maam sunu Ibrahima ba mu nekk ak sunu borom ba mu tudd Xalilulaay Iblis da koo xamal daa ba Ismaayil judd da koo xamal ne sa ba de sa ba keneen sanc ci xam nga la ñuy kii ilaa man taala bi xalbin salim waaw léegi nag ne ko foo defee ne kooka dëkk mu ko Ibrahima ca ba doomam jaa ko mu ne ko maag gënal doomam ja mu ko doomam jaa la ko gënal mu ne ko danaa la ko mas dangaa la masa dangaa masa am bis ma woon la ko ba Ibrahima génte suñu borom ne ko na rey doomam ji mu tëddaat géntaat ko daa woo Ismaïla wax ko ko mu ne ko fil maa ta'muru sataju inshaa Allah mina saabiriina defal li la yàlla sant da nga ma fekk ma bokk ca woy muñ mu wax ko ndeyam ndeyam ne ko defal Ibrahima bëgg koo def Iblis ñëwaat bëgg a yàq loolee ndax la mu ko ne woon maa gënal doomam ji Iblis ñëw ne Ibrahima yàlla mi nga mi nga naan mi naan xalilulaay bu doon sa xarit doo rey la sa amul soxna yor doom bëgg la rëy sa doom ji moo ko ci dugal Ibrahima dóor ko juróom-ñaari doj mu dem na aajari Ibrahima yor na la yor keneen sa doom ji dem ba ko gis bëgg la koo rey loo te boo ko rey yow doo am doom dalaa bëgg a lor kookaat dóor ko juróom-ñaari doj mu ñëw ne Ismaïla sa baay ak ji dun nañ seen jamono ba mu jeex dem nañ ba màggat yow nga toll ci ko la gis bëgg la bëgg laa rend ci gént képp kookaat dóor ko juróom-ñaari doj mooy ñi aji màkka jamratul ola ak jamratul wusta ak jamratul aqaba ya ñuy dóor fa ku ci fu ci ne da nga fa dóor juróom ñaar dojo ñi xam ne dañ naan ci bopp iblis lay dal waaw léegi nag ba mu ko tàmbalee bëgg a def Ismaayla da ko ne takkal bët yi boobu ma a xool na paaka bi ñoom ma bañ a seel takkal tànk yi mbumeet na ko summi ndax bu ca del ci taqee bu ko ndeyam gisa teet xelam day dellu ci moom ba maam sunu Ibrahima jëlee paaka ba bay def ndigal la ba mu dawalee paaka ba kii bi mu ko daasaatee kii weñ ngam ca les daa dalife mu tubaat ak paaka ba nag ba mu ko jubee nag sunu borom ne jibril nag bu fekkee mu rendi ko kuréelu malaaka yi nga jiite woon danaa la ca génne jibril bi mu rëdd monde bi ca kaaba ak màkka ga la taxaw mennum laafam la rëddee lépp léegi nag juróom-ñaar fukki junniy laaf yamaam yëpp la wàccee bi muy ñëw <coughs> léegi bi mu ñëwee nag rocci rocci ismaila ron fam xar mu rendi ba der ji tooyi tànk mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ismailaat ne alhamdulilahi rabbil alamin fañ takk bët yi ndayam ne alhamdulilahi rabbil alamin jibril ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax ibrahima ne daa yow xool mu dem xar mu ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw yàlla def naa ndigal li te te doomam diw te yàlla ci boppam moo fi indi li ko wóotal ismailaat ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw diggante yàlla ak yonent bi yàquwul ci man ajara ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw diggante yàlla ak yonent bi yàquwul ci man te am naa sama doom jibril ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw sama kuréelu malaaka ba ma bokkan nga xam ne jibril rek malaaka ya bokk te waaye tegul ñaan tanasal malaayka tu waroo ruuxu gi ruuxu laay gi ku ñu jublu li muy dem fa sun borom di ñëw tax te ruuxu isaan moom lañ ko joxoon moo ko wale woon soxna sa eh, lati ahsanat farja fanax naa fii min ruuxi na sadax bi kalimat rabbi moo ko yóbbu woon te loolee lépp nag da koo nar na ñàkk <laughs> mooy nag li ñu naan mboolem xaaj yi ñeent lillaahi ñeel yàlla rabbil alamin kii borom da ngay dégg ku naan bu bu Ismaayla ñoom ñooñu tabaski lañu doon ma ne ko du ngeen matti tabaski ndax da ngeen dul judd seen maam yooyu bañ doon dee du ngeen du ngeen doon tabaski <laughs> te te ba moom ba mu tëddee foofu ca Marwata mm-hmm. ak ndeyam mm-hmm. tànkam yam doon yëq mm-hmm. te boobu ndeyam ba ba ñu ne foofee Ibrahima da ko faa yóbbu mu ne ko sama borom dana naa la génne mu a ko xur yu àll bi moo la ne nga wàcc ma bi waa din xayra si sar ina baytikal muharram mu ne ko waaw mu ne ko loola sa borom sant nangu naa ko te boobu soxna soo ko joxoon Ibrahima donc ku mujj di fii rek mu te kooka yàlla baaxee na ko jo ba bi mu amee Ismaïla ci Ibrahima ca la kookaat am Isaaxa ca nër woon am doom waaw foofee nag fa la tabaski jaare sëñ Tuubaa daa ko def nag ba mu ko santee Cheikh Ibra nag Cheikh Ibra da la fa ne ko ndax sañ nañ ko mu ne ko boo indi la fa nekk lépp loola fa wootaan sañ nga koo tabaski waaw waaw. xam ne kon cosaan la yóbbu xari tabaski yi. waaw Cheikh ba ñëw ba ca nun ñii nag ba egg si fii ju baax ju jàllan rek eh, moo indi lii ñeneen ñi leen dal seen jëfi maam ju bonoon na leen ko yóbbu ah dama leen mi ngi ne lëggeel sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima moom xool ko ci màggal rek 18 eh, safar gaynde ma ko boofaloon ca fañ ko tëjee moom fii foo dem fekk fa gaynde guy lekk lu mu fàddut parc boo dem la mu fay lekk fàddu ko mhm. te seen maama leen ko yóbbee nag ma ko doon jéem a daan ca mool wit dix safar ji ñëw nanga mi satam dee te seen maama leen ko yóbbee nun ñi nag sun maam li mu yóbbi nag mooy ñaqal sëñ Tuubaa Cheikh Ibra te dama leen sëñ Tuubaa ndem doom ñu jur mhm. la ñu santu santam yor deretam la seenu ñaq dul fendi mhm. nun ñi nga xam ne sunu ñaq doo nu booleeg moom war nu ko bàyyi muy fendi <laughs> ci ab jullit rawatina taalibe bi ak sëriñam. waaw ah, mooy nii ma wax de loolu kay ma la wax léegi lu baax moom foo ko defee baax na waaye defee ko fu gën a baax daa gën a baax waaw. <laughs> wajaxlu yaa rabbi ahaba maskani fi ardina lakka walil ma aysani gannaaw nee na ñaan dëkk bi di bi koy gënal ci suuf si ko gënal ci suuf defari bàkkaar di indi xéewal ak yiw mu tànn ñi ko gënal ci nit ñett génne leen ci njabootu sëñ Tuubaa gi foo defe lu baax baax na waaye fa gën a baax a gën a baax yan kàddu la sëriñ bi dénk bokki taalibe yi fii jamono toll euh, jëf ci ñaaw ji yaatu lool léeg-léeg nga dégg ñaawte foo xam ne da nga naan lii na ko jullit di defee loolu moom bu ca sa yoon nekk rek ab jullit du ab jullit maanaam nuñ koy tuddee li ñu li ñuy li ñuy yokke wax ji nu mu tudd maanaam boo waxee dara ni ñu koy tasaaree waaw ah. ah, ah, ab du tas ah waaw dama ne ab jullit du tasaare ñaawte yow boo ko déggee na la ca dégg gore mag ñi dañ daan def lu dégg ci néex li ñu faxas seenum nopp nettali waxaat ko du leen ci fekk gaa yi nag da ba noppi dellu waxaat ko sa morom kooko wax ko keneen xam nga bàkkaarub jaamur bu jalefee nga di jëti bi di yóbbu bu ci ñëpp ti bi day mujj deseetul dara te yéen a a yaa gàddu bàkkaar yi seen i dem ko fu la da nga fay bàyyi lool jërëjëf xale <laughs> ma leen daan wax yëpp fii ne waxam ko bu yàgg te day soog a ñëw daf naa whatsapp bi day ci watoo def luñ cib réseaux sociaux bi day Eh, google bi bu ci def luy jurug mbugal mhm. senab bi bu ci def luy jur janaba fii ne bari na yu yàqu ci dëkk bi ci lu jur janaba ko yàq yeneen yeneen yi ci desit noonu yi mhm. waaw net bi dugg ci ci koy nat bu nat bu mooy sang ci arab yooyu yooyu da bari ci yu ma waxante boobu yi ñëwagut te yooyu état nag buñ ko buñ ko tëyoon ci yooyu état du exige mhm. dama leen tubaab moom lub de distance la yor yàlla yor lub de siècle tubaab moom par téeméeri mètre ñaar yàlla nag dala dala mën nañ xamal nit ki lu ñenn ñi xamal leen li dale fii ba war sàq mhm. ñenn ñi xamal leen la ko jiitu ñenn ñi xamal leen ci diggante bi yow ma yaronaw bàyyi dan war na raaw xarib ci lay dox li soññi taalib yi rek li ñu ci def rek bu dee nee nag ku ne fexe man lu ko ëpp nan ci yàlla dimbali rek doole suñu tubaab seex bi lu ñu ci def nu man lu ko ëpp gannaaw sunna yonant la ñuy dundal di ci bégalaale sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra mm. nan ci gën a góorgóor ndax ñeneen a def seen jëf ci leneen te du farat mm. jaagéen li ñu jaaxal foofu sax ñuy jégg lu baax dañu gis ne xarit Tabaski la ñuy wax waaye dañu gis chaque année nga dugal ci gileem lu waral loolu waaw ah, gileem gi moom dama leen man eppatam ba daga na bu ma ko ci mën na boole boole ko ci yóbbu waaw mm. ah, xam nga dañ ne bu dee màkk gileem fa gën a rëy mm-hmm. nag topp ca xar topp ah, mm-hmm. ci te te sëriñ yi sëñ Touba doon ganale ca gànnaar uh-huh. maxtaar benn jong mi jur sama ndey uh-huh. um, am na suñ sëñ Moussa Kaw def na ko ci biir uh-huh. giléem nga ko sëñ bi doon jox moom la ko jëliloo moo ko womat indi giléem la leen sëriñ bi jox ñi rendi maxtaar penda ja nga ko womat indi moo kookee jur sama ndey kooka nag dama ciy baaxantal ca loola muy jàmbaar joo xam ne saa bu jëfee sa xol sedd saabu bu waxee itam nga gindi ko ci nu koy ñaanal ak yàggam filal ak wéram damay wax ne sëriñ Cheikh sun borom moo nu ko defal muy tawfeex géeju ngëneel la waaye géeju xam-xam la yàlla nañ ko barkeeloo te sama borom ko fi lool ndax wétlu jullit ñëpp la wétlu taalibe yëpp la kon Fall Yaram noo ngi lay santal baax la gërëm mbokki kon liggéey baa ngi nii des na tuuti ci kanam nag ñu ànd ak mbokki taalibe yi koy yóbbu ànd ak ñoom incha allah gunge leen ba fa kanamu sëriñ ba ba kaddu yi nga xam ne sëriñ bi dina ko fa jokkalante ak moom lépp nag daañu leen ko toppal incha allah fii seen rajo Carrefour euh, FM ak Istiqama TV ak Sik FM ak Xelkom TV mbokk yi kon mi ngoog dig daje ak seen bokkum taalibe Mor Talla Kane ndongal Touba jëf.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 jërë ngeen jëf mbokk yi ñu topp di ñu bàyyi xel ci Istikhama TV ñu ngi fii ci liggéey bu màgg bi nga xam ne Serigne Cheikh Fall Mbawor mi jëriñ kër Serigne Aliou Fall Mbawor moo ko baaxoo amal at mu jot muy xadee ju mu yóbbu kër Serigne Touba at mu jot mu baaxoo ko def waaye xam ngeen ne ren ji ci tabaski gi defaat na na mu daan def muy wut xar yu bare boole ko gëléem gi mu ci daan boole fas ko yéene jëbbal ki fi nekk Serigne Touba te moo di Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ni ñaan mu yàgg fi te wér mbokk yi kii ngeen gis muy gi muy jàmbaar joo xam ne euh, mooy jàmbaar joo xam ne ñëpp koy bàyyi xel mu muy mu Moustapha Fall jëwriñ moom nag boo ko fekkee ci ëttub sëriñ euh, Cheikh Fall Mbawor ni mu takkee deram gi di liggéey Cheikh Ibra du tekki ku mukk nu koy ñaanam yàgg pilotaan ak wér sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la yaa ngi womat gëléem gi yéen kàddu ngay nuyoo bokki taalibe yi waaw xanaa asalaamaaleykum wa rahmatulah sant rek ak gërëm di leen ñaanal fan wu ak wér ba li ñu yéenee liggéeyal sëriñ bi ñu defe ko ni ñu ko bëggee te defe ko seen coobare ndax sëriñ bi moom wàccoo na ak ñun te suñ Cheikh Mbawar daan wax naan koo xam ne saw ñaq la ci boole ñaq yu wër la fenn waaw eh, may dégg sëñ Moussa yi daan ni képp koo xam ne nuñ la def mooma loo am mooma loo xam mooma mooma mooma yooyu yëpp ñu dajale ko ba pare di mel na leen kon du ngor ci ñun waaw lool loolu du ngor ci ñun waaw ñun te comme ñom ñoom ñi nga xam ni Mbàkke lañ sant di def noonu man bi ma ko gisee muy nuyu mu Muntaxa ba sukk groupe ak ñaar tànk yi bëri na ci murid yoo xam ne bu ñuy nujoo bu ñuy nuyoo sax benn loxo la ñuy joxe wala wala dinaa nii nangam te moom mag la teewut bi mu nee groupe daa mel ni gone gu ndaw daa ni mu xam ne sëñ bee ko jàppaatal boppam mu jógaatal boppam ak kàttan ko nga xam ne ki ak bëgg ak yéene xam ne xënjiwul ku dul maamam kon ñun daal moom buñu amee jom góorgóorlu rek waaw mujjee ko mu réer daal yàlla buñ ko def waaw Eh, jërëjëf Fall bég nañ lool ci kàddu yi ndax soññee na te it jëmale waat lépp ci ak taalibe waaye gis nañ ne chaque année gilem gi yaa koy womat te Fall nga mën a bokk ci ñi nga xam ne ah, dañ koy santaane rek nag Fall lu waral loolu. waaw man de sëñ bi dama koy wax sax moom da moom ba ñàkk ba dongo yi la ma wéetale uh-huh. te daa ma fexeel ba ñàkk dongo yi dongo yi nekk ci daara ji sax danaa ma dee leen bégal ndax seenu ñàkk saa bu ñàkkee dee leen bégal ndax mm, ndax ndax ngay tax kon moo xam ne moom moo ma ko yéene <laughs> eh, it wax dëgg yàlla te bu fekkoon loo xam ni ma xam ne bu doon lu ñuy jiital wala ñuy laaj doom wala ñuy laaj nit barke maam a Fall du joxe taalibe kon ñun ñi lay joxe waaw looloo looloo tax waaw ñun daal dañ ñoo fayee bor te boo matul gudd nag moom <laughs> liggéey bay bëgg a dee ndax ñu dabe sax jërëjëf Fall mi nga kon Abdoul Bakhe kon dégg nga noonu Serigne Moustapha Fall jëwriñ ni mu koy yëkkatee kàddu yooyu euh, ci at mu jot la ñuy seq moom mu womat gëlëm gi nii ci ndigalul kilifaam Serigne Cheikh Fall Mbawor moom Serigne Aliou Fall Mbawor mu mel ne kon mbokk yi euh, kon nañu ànd ak seen rek ñu ngi nii nag dëgmal 28 fa yéene ak kër Serigne Touba euh, Serigne Mountakha Mbacké Serigne bi itam nag mi ngi noonu ci biir mbooloo mi nii ko Serigne waxee rek na la ko Serigne Cheikh Fall Mbawar defee muy di dox ak tànkam ànd ak bokki dongo yi ak bokki taalib yi kon loolu moo waral dox bi xaw a yeex mbokk yi dig daje fii ak kër Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha jërë ngeen jëf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 boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo